ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi dolli ziar bu baax a baax a baax. ñu ngi leen di li ñu bokk ki nga xam ne référence la woon ci Sénégal ak le monde ci di Alioune Camara ñi di ko wax Boy Bambara euh, ñu buggoon rek nga sànni ci ay kàddu wax ñu kan moo nekkoon Alioune Camara ñu gën ko duppee booy Bambara. Euh, dafa nekkoon euh, un père de famille exemplaire nekkoon nit ku oyof amoon ouverture ku jullite nekk nit ku baax. nekkoon na nit koo xam ne tey euh, bu xaw ma nu ma ko mën a xayma fédérateur la woon këram boo fa mosoon dugg doo xamee ñu mu jurul lu mu jurul te loo nekk ndaw ndaw ndaw mu jox la cër bu musaan dugg si sax nga ñëw fekk mu toog ama fa toog moom da yi day préféré toog ci suuf jox la place am ak lu mu la mag ak lu mu doon sa kilifa kilifa baax nekk jullit bëgg njaboot am ah, montal mënu mu wax si moom xaw sama xol dafa fees ba mënu ma wax franchement parler ndax àddina ñàkk na mais tey man mën naa wax ne man mii di taawam tey maa ñàkk ndax na moo ki ma jur ak moom ñoo bokk ndey ak sama maam ñoom ñaar rek la am mais ñoom ñaar dund nañu musuñu leen atte kenn musul xam boo ñëwee ci kër gi sama papa wala moom kan moo jur diw kan moo jur diw doo doo doo leen xàmme doo leen ràññee ndax seen baaxaay Papa Aliou daal macha allah dañ koy ñaanal fa mu nekk yàlla na ko gënal fii yàlla na koy yàlla teeru ci àjjanay firdawsa yi franchement parler macha allah moom mention spéciale la waaw fédérateur la woon defal na réew mi loo xam ne macha allah te bëggoon na njaboot dajale njaboot loolu rek mu doon rôlam waxtaan bu mu musaana waxtaan bu mu musaana woon ñëm ñu toog mu ne ibu mu ne maanaam mu ne ma da leen xool seen kanam di tegu ci yoonu siraatal mustaqim day leen bëggante seen biir moytu leen yee fitna moytu leen ay des ñu daan yedd ci lu bare bare bare bare ci lu baax kon tey ji nii dañ dañuy sant yàlla bu ñu suñu papa tegee ci yoonu siraatul mustaqim rëccu wuñ ko mukk liñ ko doon amee tey kay dañuy jooy liñ ko ñàkk waaye dañ koy santee yàlla yàlla mi ngi xam ne moo ñu ko joxoon te moo ñu ko gën a soxla moo ko jël tey waaw loolu daal laa merci yàlla nañu yàlla bool yoolu seer moon xam tur bi ak sant bi man Baara Bàcci loolu ñu bëggoon. Bambara numéro 2. ah léegi ñu bëggoon xam lan moo tax ñu la doon ooye booy Bambara numéro de ah dama daan ànd ak moom di bëre ñu yàgg trop nag boo xam ne fu muy mun di dem ñun ñooy ànd. ah bu nekkee di bu ñu bëree bu ñu daanee moom mooy ñëw remplacer ñu daan kii ko daan moo tax ñu tuddee Boy Bambara numéro 2. léegi euh, moo taxoon ñu tuddee la booy Bambara numéro 2 léegi ñu buggoon xam kii jóge fi nga xam ne nekkoon na référence ci Sénégal ak le monde entier. alors ñu bëggoon nga wax ñu tuuti rek kan moo nekkoon Boy Bambara. ah Boy Bambara bu ñu toogee di ci wax maak yow fii ba suba du jeex ndax yaakaar naa ne fi ñu jaar yëpp mënumaa toog di ko expliquer nit parce que lépp loo xam ni rek daana nekk ci sport rek Boy Bambara loxoom a nga ca te mus see ñaaw mus see def dara musul kenn musul dégg mu saaga kenn musul dégg mu mer kenn musul dégg mu def dara xanaa jàmm rek foo ko fekk daal mu ngi ci jàmm waaw waaw. jël na fi nag raaye bu nekk lu nekk ay coupe par jël na ko lu bari lu nekk jël na ko fii cere champion la Sénégal champion la bitim réew fu nekk dem na fa te andil na senegal ndam lu nekk wax dëgg yàlla. mooy euh, lan nga gën a retenir lan nga gën a jàpp ci moom ci ànd bi ngeen daan ànd. li ñu gën a jàpp ci moom mooy ñun xale yi bu ñu dee bëgg di jàppante sax moom mooy ñëw arrêté ni déedéet loolu bu leen ko def. loolu daal jàpp naa ko ci moom jàpp naa ci moom it mosuloo gis benn nit jàppante moom mbaa mu benn mbër daan ko ba gis mu sanse adjustam mbaa dara jàpp naa ci moom loo xam ni tamit jikko boo xam ni jikko yu bëree bare bare bare bare bare mu amoon ko mbër yu bëri amuñu ko war mu nekkoon ay ay ay digleem moom ay ah ay digleem lan moo nekkoon ay digleem lan la daan lan nga daan jàpp ci ay kàddoom loo loo xam ne bu ngeen daan ànd loolu la daan digal. bu ñu bëgg a bu ñu war a bëre ba ñu jóg ci làmb ji day ñëw ne ah tey kat ñu ngi bëre gi waaye bëgguma fi xuloo bëgguma fi xeex nañu def jàmm rek bu ñu daanee ñibbi bu ñu daanee ñu ñibbi loolu daal jàppoon naa ko ci moom. sama laaj bu mujj est-ce que tey jotul ku mel ni ñoom booy Bambara ñu leen di tuddee lu mel ni arène nationale wala yeneen ak yeneen ñu bañ a bàyyi ba ñu faatu rek. waaw loolu danañ ko war war naa nekk mais ñoom duñ ko def dañuy bàyyi ba nga faatu ñu ñëw taxaw nag di wax sa jikko nii nga mel nii nga mel te nit balaa muy faatu war nga koo wane ni mu mel. raay bu nekk ci Sénégal. raay bu nekk dugal na ko fii senegal Sénégal boo xilaat rek dugal na ko fii ci Sénégal boobu ñoom Fall Adrien ñoo ko doon yor ak Assis Lam ñoom ñoo daan yore ñoom booy Bambara di leen yóbbu fu nekk ñoom ñoo daan daan yóbbu ñuy bëre yuy dër a waaw ñun booba ah, parce que Boy moo ñu magoon mais fu mu daan dem ñooy ànd bu muy di voyagé ñun ñoo koy teeru ñoo koy def lépp. waaw man ni làmb bu Moussa daan mbër man maa koy gàddu yoo génne ko ci biti loolu ñëpp xamee nañ ma ko sama xarit la woon amul woon benn changement kii nag moo nekkoon koo xam ne fu ñu mosoon di jëm mooy taal oto yóbbu ñu fu mu mos a jëm fu Boy Bambara mos a jëm ci àdduna ci Sénégal gi Sénégal gi kii moo koy Ibrahima Fall mi moo koy yóbbu lépp moom yaakaar naa ni moom li mu xam ci Boy Bambara sax mënu ma mu xaw ma ma bi góor gi maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay. yaa am jàmm. maa ngi am jàmm ma bëggoon xam tur bi ak sant bi. man Issa Gadiaga laa tudd Caaroy Gaar laa dëkk karti Mbacke Mbeng ma bëggoon lan mooy sa teewaay ci dëju Boy Bambara. teewaay ci dëju Boy Bambara mooy Boy Bambara dafa nekkoon ku baax daan bëre lu lu lu rafet teral ay nit fii ci Sénégal takkusaan gu ne defal na ko ay nit. ba am benn bés ma ñëw loolu yàgg na ba am benn bés ma ñëw ca marché ngelaw dégg ay xale ñuy wax ne kër Boy Bambara ma daan ne fan la kër gi ne ñu ne ma fii ci ginnaaw ma dem yóbbu ba ca kër ga fekk moo ngi ci tawat ji ma ñëw toog ba ca biir néegam mu toog ci kawlal bi ma toog ci siis bi di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ñuy waxtaan ba may ñaanal ko fa ndeysaan et puis ba mu ëlbati ko sax ñuy waxtaan bay waxtaan ci Sanjambur ba mu ne ma Sanjambur ma ne ko man Sanjambur sax ma ma gise woon naa ko fële ci Treichville muy jaay ndawal foofu ci marché Treichville mu ne waaw. Treichville ca Gabon. ci Treichville ci Abidjan Sanjambur. xam nga kii di xam nga kii di def na fa sept ans. kanti kii la filmé nii. Ah, ah nu mu tudd. Pape Diagne. Pape Diagne man trésorier laa nekkoon 84 84 84 ba 2011 maa ngi diggante trésorier ak Grand Bassam Grand Bassam laa mujj am naa fa 10 ans trésorier Marcory quartier yooyu yëpp xam naa ko foofu foofu laa doon ñëwee man dama daan ñëw tailleur laa woon affaire bi daf maa dab. kon yow xanaa soppe booy bambara nga woon. soppe booy bambara laa woon waa takkusaan gu ne def na ko fi. lan moo la gën a marqué ci Boy Bambara. lan moo gën a marqué ci booy Bambara mooy Boy Bambara ba muy bëre amoon na yar amoon na teggin respecté woon na nit ñi xamoon na doomu aadama yi ñooy ñan xamoon na ñu ko supporté moom Boy Bambara ñi ko supporté woon nag ñi ko supporté wu loolu yëpp da leen def ay supporters. di di di leen bëggee di leen bëggee Boy Bambara daan dox ci daan jox ci usine benn tali wala ci Ndakaaru xale bu ndaw mën na koo arrêté Pape Boy Bambara mu taxaw. nuyu la saafonteeg yëpp daal di woo ëlbati ko jàdd saafonteeg ñëpp ndax mbaaxam ak yaroom ak tegginam mooy bambara bar yal ko yàlla yërëm ñu dégg nga tudd keneen aussi muy ancien lutteur nekkoon ci làmb ji di Sa Ndiambour lan moo doxoon sa diggante yow ak Sa Ndiambour wala Boy Bambara sama diggante ak Sa Ndiambour ak booy Bambara Sa dama ko daan gis rek muy bëre ci stade Demba Diop ci stade yi moom Sa Ndiambour daan bëre bëre bu rafet bëre bu neex diggante Sa ak Boy Bambara ñoom ay xarit lañu woon waaw ba ma mujjee gis saa njàmbur ba ma ko fa ma ko mujjee gis mooy bëre Madiaw Ndiaye ak Robert Diouf te stade Iba Mar boori 1972 côté yooyu la woon 1972 bëre Madiaw Ndiaye ak ak Robert ca stade Iba Mar Diop. nekkoon combat bu métti. nekkoon combat bu waaw diggante waaw diggante waaw ak Robert Diouf. Robert ak Mbaye Gueye aussi defe naa stade Iba Mar. Iba stade Iba Mar Diop lañ lañ njëkk a bëree. gis nga Double Less mi buy jóg dugg ci làmb Robert Diouf la njëkk a bëreel booba temps ñoom Alaaji Tafa Ndiaye ak Ablaye Naar Samb ñoo yoroon reporter bi ñoo doon reporter làmb. jógee ak ñoom Alaaji Makhtar Diallo. Alaaji Makhtar Diallo waaw Alaaji Makhtar Diallo ñoom ñëpp ñoo daan. ñoo daan reporter làmb ji kooku booba temps ki ñuy wax Alaaji Maada Penda Seck kooku moom pencum Sénégal la yoroon ak Doudou Diop ndeysaan Silmaxa ñoom ñëpp rajo Sénégal lañ nekkoon ak ñoom parti Guèye Fall. Ablaye Nar Samb Ablaye Nar Samb. ñoom Majib Sène parti Guèye Fall Majib Sène parti Guèye ak ak ak ak kii nu waaye ki daan Maguette Wade ki daan def un peu de tout. mu ngi dund ba léegi nag mu Maguette Wade mu ngi dund ba léegi moo daan def un peu de tout. di teg ay di di teg ay ay ay ay ay woy yu neex ndeysaan temps yooyu mooy temps yi ñoom Maada Thiam ak ñoom xadi Diouf ak ñooñu day san ak ñoom ah, Sunjuru Sissoko ak ñoom doomi Double day ndeysaan ñëw nga ñëw na. ah jërëjëf loolu ba ma ñëwee nag ba ma demee marché ngelaw ñu wax ma ko ba ma demee ba ca kër ga toog mu toog ci kaw la ma toog ñuy waxtaan di waxtaanee loolu ba ma jógee fa daal di dem ba ma fa jógee daal di dem dama ma toogaat ay fan bésu tabaski ga ci boppam bésu tabaski gay passé ma ñëw di ko seet si fekk doom ji ma nuyu ko ma ne ko ana booy bambara sama xarit mu ne mu ngi ci biir waaye day nelaw ma ne comme day nelaw maa ngi dem te ñëw ba ma demee ñëwaatuma parce que ma su ma ñëwee di ko déranger ba ma ñibbee caaro yi ba mu toogaat ay fan laa ñëw laajaat ko ca biir kër ga njaboot ga ne ma ah moom de léegi mu ngi parcelle boo demee parcelle ci fan ci parcelle ñu ne ma unité 21 boo demee ca ginnaaw police ba nga laaj bàjjenu xo bàjjenu gox ba ñu ngi koy wax ami jum boo demee bi di ko gis boo baag léegi nag ma amoon yéene ñëw mais yàlla deful woon ma ñëw tey jii démb laa naroon a ñëw mais démb dama koo dégg boo boori 11h boori midi ñu koy tàggee ci rajo bi ndeysaan waaw wàcc na liggéey dañ ne Aline Camara alias Boy Bambara wàcc na liggéey suba incha allah lañ koy yóbbu ca kër gu màgg ca yoof ma daal jog toog ma ne ah man de heure bii xam naa su ma fi jógee caaro gi di dem dina guddi naa bàyyi ba suba moo tax ma xëy daal di ñëw ca kër ga laa jaar ba ma fa jaaree ñu ne ma ah ñoom de ñoom ñëpp ñu nga fële ca dëj ba ma fan ñu ne ma parcelle ñaari doomam ak jarbaatam ñoo ma indi ba fii ma toog nii ñoo ma fi toog loo Boy Bambara ah. fan ak wér gi amin amin fa mu tëdd ne yal na ko gënal fi mu jóge yal na ko rasulullah teeru yóbbu ko àjjana ak firdawsi moog ñam fa ne moog ñam fa ña ko fa jiitu ak ñam fa fekk ak ñam fa fekk yëpp yal na ko yàlla yal na yàlla yokk ay leeram wàcceel ñu barkeem fii ci àdduna ak njabootam yu mu focc yal na ci yàlla teg loxo ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. booy bambara gore woon na yaru woon na li mënoon na li muy def te amoon na ci fulla amoon na ci fayda. ba nga xam ne lépp lu mu ci mosaana am da koy séddalee doomu aadama merci mosaana am ci bërëb bi rek booy bambara da koy séddalee doomu aadama yi. jërëjëf. alors pour bi ak sant bi. alors ñu bëggoon xam yow lan moo la lié woon lan moo la boole ak booy bambara. ñu boole woon. waaw lanam nga woon soxnaam nga woon. alors tey mu génn àdduna euh, yal na ko yàlla xaare àjjana tey ngeen am benn doom bu góor. waaw sëy ak moom may moom ñëpp teewe moom moom yàlla ween waaw maanaam suñu borom moo ko jeexal moo ko jeexal ay sëkk nekk moo fi nekk yaa ngi dégg waaye booy nit la koo koo xam ne daal amoon yërmande sax amoon yërmande ci jabar kër gi doon man ñaari fan man ñaari fan laa dëkk mu dëkk ñaari fan. kon yéen a bokkoon benn koñ. déedéet bokkuñu benn koñ mais sori wuñu woon daal. man damaa naa nga dellusi un ci yan circonstances maanaam ci yan euh, nan ngeen def ba xamante. nun def ba xamante. waaw ah, ba mu jël la soxna. ba mu ma soxna. damaa sëy sama jëkkër. baaram mi leer na ko. koñam laa doon sëy. tàggoog sama jëkkër ñibbi si ñaari tali bi ma ñibbi see ñaari tali sëñ xaadim pour naan xaadim Mbàkke doon jàng jumaay ñaari tali mu gis ma ci biir jàng ma génn. moom booy bambara. moom booy bambara may dëkk ñaari ma xamuma woon de ndax man damaa teel a sëy fukki at ak ñett ci laa sëy ak sama borom kër leer na ñun ñëpp fekk na ko ñun ñun fekk na fukki at ak ñett laa sëy sama jëkkër ma tàggoog sama ñëw mu gis ma ci jàng sëñ xaadim xaadim bayaalu ñaari tali. mu gis ma ku ñuy wax Pape Seck Géwël ni ay doomam di tëgg làmb la gis na ko kii dama ko bëgg mu ne ko kii de day doog a tàggoo borom këram yàgg day bëgg a tàggoo borom këram yàgg kon maanaam ah, yow bi ngay toll ci say guddi moom jonga ma woon ma macha allah. jonga ma nag moom yàlla xam waaye nag xam naa ne ñaaw moom ñaaw moom def ko. après mu gis ne da laa bëgg. mu gis ma bëgg. bu ma ko waxee Pape Seck sama sëy ci loxo la jaar ñii tëgg sabar tey seen papa naka yàlla yërëm fa mu ne sama sëy ci loxoom la jaar ndax ba mu ko ko waxee dana ko xaaral comme day dogo tas te ci ma dem waxam di ko dox di ko dox ko dox ba yàlla ba mu ñëwee Pape ba mu ñëwee wax ma ko dama ne ko sëyatuma sëyaguma yàlla def mu di ko a ba yàlla def ma sëy ma sëy ak moom sëy naan moom fi naag moom ñetti at yàlla moom ñetti at aw ma doom moom ñetti at fi fi laa sama doom mu doom mu tudd ko bu ko doon ni jaay est-ce que yomboon na nekk ak mu mel ni Boy am succès di dem ci àdduna fu ne mu indi fa ay raaya ah yomb na yomb na yomb ndax nag man jabaram laa woon de waaye nag ma fiiram ma man fiiram ma bàyyi Boy Bambara man dama fu mu dugg ma fekk ko fa man fu mu dugg rek fekk naa ko fa maa fi woon nii yàlla rek laay wax maa fi woon fu mu dugg rek fekk waaye lu baax ak lu rafet ak bëgg soxna bëgg njabootam bëgg doomam am yërmande defoon na loolu moom leer na ñëpp. loolu moom leer na ñëpp man baawuma sax dem laam dama doon a nit koo xam ne daaw ma dem demal naa ba du man duma dem laam man laam bëgguma ko dem seetaan lamb jooju ngay wax ma bëggoon xam lan moo nekkoon digganteem ak euh, mbër ñu mel ni ñoom Mbaye Gueye ñoom duubale seen diggante xaritoom yëpp xaritoog doom ñoom lees duubal lees ñoom Mbaye Gueye ñoo ko ngénta ñoom baar ñoo ngénta si ñaar tak sama doom yaa ngi dégg ay xarit lañu woon ñu suñoo am problème bëri nañ ba bëri da dara ñaaw ah man de xaw ci dara lu ñaaw bëri naa duubalees bëri naa mbay gi bëri naa robeel bëri ñëpp bàyyi musuma ci benn problème seen la ñuy wax gisuma ci xeex gisuma ci dëgg yàlla jàmm daal laa xamante booy daal bégal na ñaar tari xanaa looloo tax bi mu feebaree Balla doomu duubalees am ci taxawaay bu am ah, ñi ci am taxawaay bari na Balla am na ci taxawaay waaye ñi ci am taxawaay bari na de la femme Ndeye mi ngi ci woon di ko jàppale bu dégg bëccëg Balla di fi ñëw Balla Gaye moom daal di fi ñëw di ko taxaw di fi ñëw daal fi ñëw di ko seet dëgg yàlla man nag yàlla def na musuma tombeeg moom waaye dégg naa daanu fi ñëw fii ci parc te ñëw na ñaar kay am na boo xam ne lees ñëw na ñaar kali foofu moom tasa naa femme bu dul nekk du ñaar moom dubales moom dubales kon maanaam euh, ñu am kóllëre ñu am kóllëre lañ wax dëgg yàlla ñu am kóllëre booy daal nit ku baax la woon ba dem booy daal nax nañu ba dem rek dal na ko yàlla yërëm dal na ko yàlla jéggal dal na ko yàlla yóbbu ci àjjanay firdaw si fa yal na àjjanay këram ci barke alxuraan man loolu daal laa ñaanal booy bamba waaw man loolu rek laa ñaanal booy bamba bi ma waxee moom ñetti fan la tombé mu wax ah bi ngeen waxee moom la ñetti fan ñetti fan rek la ñetti fan rek a jot nag maan fi ñëw lan alam kon malgré que li ngeen li ngeen li ngeen li ngeen li ngeen nekkatul yëpp daan nga continuer di ñëw fi. ba maam ak doom doom doomam yu góor a nga ne ay doomam bi samay doom ay doom seen sët seen bi nii. waaw ah, dañoo gis ñoo xam ni euh, en général bu sëy bi jeexee rek jeex na. man sama dara ñaaw hmm. di ay jabar. loolu day won ni diggante bi ba léegi mi ngi doon rafet. di rafet rek ak i jabar ak i bu ma ñëwee lépp sama loxo bi lañ kay teg maa xam teel a laay waxee maay taxaw maay def maay ji bu ma ñëwee cëpp mu ne lépp nañ ko def ci loxo nit maay def maay ji ay doomam bëgg ma lool ay jabaram bëgg ma lool ñu nekk te boobu def ki ma doon fekkanteel moom dafa gaañ ma fekkanteel moom yàlla def na gaañ moo gaañu bu yàgg rek waaye ñii ak la sama ginnaaw kenn ku xees ki fi nekk daal sama ginnaaw waaw daal moo wàññeeku yàgg moom laa fekkal teel aawoo yàlla def na gaal nga laa fekkal te lépp rafet ñoom ba léegi lépp rafet lépp rafet dara ñaar alors ñi ngi nekk ak Tafa Boy Bambara nekk doom ci Boy Bambara alors Tafa euh, tey ñu gis euh, ku am solo ci senegaal ku taxawu réewam koo xam ni façon raay bu ne indi ko ci Sénégal dem na muy Boy Bambara ñu bëggoon nga wax ñu rek kan moo nekkoon sa papa leen sant leen jaajëfal di sant suñu ñaari waajur ñu ñaanal suñu papa am na yàlla xaaral ko àddina yu gën a kawe loolu ko moom fekk na nit koo xam ni nit ku yaatu la woon nit ku bëgg mbokk nit ku bëgg ay sëtam nit ku bëgg ay xale ñi mu nekkal boobu waaw moom amul woon xajal seen ci kenn daal ay sëtam ay doom ñëpp la yemale woon dafa boole woon uuf ñëpp waaw doonoon nit koo xam ne tey jii dafa yaatu woon daal moom dafa baaxoon ñun dañoo ñun dañu dem dafa dem rek ñun ñu soog a xam kenn mooy Boy Bambou est-ce que mënoon nañ xam euh, lan nga mën a jàpp ci ay kàddoom bu ngeen daan nekk tout temps waaw bi ñu daan nekk moom li lim ñuy toujours mu ñuy yabee moom toujours rek góorgóorlu leen seen entraînement ngeen dimbali mën a dimbali seen i waajur waaw loolu la ñuy parce que daf ñu ne dañ dañu dañ leen maa jox kon dañ maa sas ci yéen seen i mbokk yaakaar kon yaakaar boobu ñu yaakaar ci man yàlla bu ko yàlla tas chaque jour loolu la ñuy wax parce que dama bëgg ngeen doon ay champion parce que yéenay sama Tyson aw ma Tyson yéenay sama Tyson yéenay sama bombardier yéenay sama loolu la ñuy waaw suñu réew si rek la daan gis waaw bi mooy euh, xamoon nga si digganteem ak euh, ancien couloir yi ñoom Mbaye Gueye ak Double euh, Less waaw ñoom ñëpp daanaka moom seen waay la woon daanaka ñoom ñëpp bëri na ak ñoom waaye ñoom paa daanaka booy xool comme diggante léegi li am léegi ci xale yi amul ci mag yi mhm. parce que booy xool ñoom ñoom ñooy daje ci làmb yi daan demlante daan demlante ñooy ànd daan tous tous bu leen invité ñoom ñëpp ñooy àndandoo takkandoo sër mhm. ku bàkku jox sa morom mu bàkk kenn daawul daw sa moroom mhm. bëri nañ ba bàyyi kenn mu du daw sa morom ba ci biir bëri sax di ñoom dañ daan invité te di di demalante bu ci fee biir feebar bi sax daan nañu wax ñu mel ni ñoom duubales ak ñeneen daan nañ ñëw di ko seet. si waaw. waaw parce que man am na budul benn budul ñaar duubales daan nañ ñëw fële kër ga. ñoom ñëpp ay ñoom ñoom. ñoom Balla Gaye ñoom Père Birahim ñoom maa ngi la ñoom ñëpp dañ daan ñëw di ko seet. mu mel ni ñooñu dañ doon sàmm kóolóore beeg sa diggante ak sa papa. waaw parce que bi ci mujj gi rek booy xool suñu papa moo fa dal. pourtant ci téléthon bi moo toog foofu. te xol moo ko te xool nga toogaat na mais yàlla bu soxlaa ak jàmm ñaar kenn du xëccoog moom daal moom moo ñu ko joxoon ah muy Boy Bambara Afrique adduna monde entier waaw koo xam ne tey jii defal na façon raaye bu ne indi na ko ci Sénégal parce que ku dem ba ñu ne euh, entraîneur national ah nekkoon école police tamit dafa liggéeyal Sénégal liggéeyal na Sénégal liggéeyal na le monde entier. entier waaw waaw parce que tey jii. tey képp kuy def nit gërëm ko. xam nañ ko parce que dëgg la dëgg jaar na ci quoi.